waaw euh, man dey li ma ci jàpp mooy que au Sénégal nous vivons dans l'émotion mm-hmm. nous sommes un peuple émotif mm-hmm. alors à côté de à côté de l'émotion il y a la raison alors ñun les professionnels de l'information de la communication les sociologues les animateurs de débats politiques ne doivent pas être dans l'émotion mm-hmm. nous sommes des producteurs de savoir nous devons nous adosser qu'aux vérités scientifiques et hmm. au principe démocratique man loolu laa jàpp alors moo tax lorsque la président Macky Sall wax ne duma bokk tu as l'émotion que ça a suscité c'est comme li nga wax rek c'était extraordinaire or man honnêtement je vois rien d'extraordinaire là-dedans il na devait pas se présenter au lieu de le dire très tôt mu leer mais quand même mu continuer à exercer sa fonction présidentielle. Mmh. il a entretenu un flou di wax ni wii ni non. Mm-hmm. à cause de ce ni oui ni non là. Mm-hmm. je pense à peu près trente personnes sont mortes. Mm-hmm. te loolu nit ñi dañ koy fàtte. trente personnes sont mortes à cause de ce flou là que le président a voulu entretenir. je pense que rang bi mu tolloon ak niveau bi mu tolloon il pouvait éviter ça aux Sénégalais. c' très clair la constitution ni ñu ko bindee il y a l' la et parfois c'est bon de privilégier l'esprit au détriment de la lettre l'esprit moo doon que ñun ñëpp ba ñuy xeex en 2011 c'est pour évacuer les cas de troisième mandat hmm. donc mënu ñëwaat dix ans vingt euh, onze ans après euh, on se retrouve dans le même cas hmm. un acteur politique boo xam ne bokkoon nga ci en 2011 ñu doon xeex troisième mandat yow nga ñëwaat yow la même personne di forcer un troisième mandat en réalité il a tâté le terrain il a vu que les Sénégalais n'étaient pas d'accord te li tax sénégalais yi d'accord euh, d'accord ñu woon ci troisième mandat bi c'était pas parce que la constitution moo ko wax sax dëgg la mais aussi dañu toll Sénégal foo xam ne aussi baat kàllaama dafa am doole ci nit ñi la respect de la parole donnée bi ko Ablaye Wade waxee ne ne maa waxoon waxet mm-hmm. ñun ñuy jàngal xale yi mm-hmm. ñun ñuy jàngal xale yi nous avons posé le débat dans les universités mm-hmm. quelle est la valeur d'une personne qui a à peu près quatre-vingt-dix ans et qui dit maa waxoon waxet bon c'est une façon da rafetal kàddu gi maa waxoon waqet donc lii maa ko waxoon mais génn naa ci et à l'époque on a dit que c'était pas une bonne image qu'il fallait envoyé à la jeunesse sénégalaise mm. mais kii moom wax dëgg yàlla comme moom acteur la woon bokkoon na ci ñi ko doon xeex di ko kaas warutoon na ñëw ba fii tey di ñu forcer un troisième mandat waru ci woon a bokk donc man j'ai vu que vraiment pour man y a rien d'extraordinaire n'est-ce pas mais comme au Sénégal on privilégie l'émotion au détriment de la raison moo ñuy yóbbee tout ça nous sommes un peuple émotif évidemment cette émotion là est renforcée par la pratique religieuse euh, na ne nous pas qui nous rend peut-être plus plus connaisseurs hein, mais pas forcément meilleurs au Sénégal la religion peut rendre connaisseur mën nga tari ay alxuraan yëpp mais est-ce que ça te sert quelque chose est-ce que sur le plan humain tu es bien ou tu n'es pas bien parce que Kant dafay wax la morale et l'incarnation des valeurs dans le réel olof ki li muy woote daf ko war a nuru. ko war a nuru est-ce que Sénégal li ñuy woote. Mhm. ñu ngi koy nuru. Mhm. waaw on est un peuple musulman mais il faut dire qu'on est à quatre-vingt-dix pour cent de musulmans croyants peut-être mais pratiquants mhm. encore moins. encore moins on croit. mais quant à la pratique dans le réel mën na des. moo tax on est trop dans les émotions. alors la différence avec l'Europe c'est que l'Europe depuis le dix-huitième siècle a rompu avec la façon de parler la façon de penser qui reposait sur la religion, sur la coutume, sur les traditions, sur le masla, etc. Au XVIIIe siècle, l'Europe est marquée par une transformation de la délibération mentale uniquement basée sur les vérités de la science. bu dee en démocratie la sur les principes républicains et les principes démocratiques les principes républicains mooy respecter li démocratie wax. boo ko defee tout le monde est à l'aise d' ailleurs en politique moi j' apprends à en politique bu leen commencé di wax naan kii mooy sama bàyyi ci politique kii samay man ça ça n'existe pas en politique. képp kuy nekk politique amal ay convictions. Mhm. partage des convictions et des principes. si elles ne sont plus là chacun est libre de partir.